eh kii eh, eh eh eh eh wàcce kii bu ko yëkkati nga dañ nga mel ni tàgg nii tàgg picc yi mag yooyu la ara ki ko eh, sa téere bi na boo yéen la laa lan ngeen di jariñ fii dem leen ngeen di téere yi ana alaaji ah gàllaaji la ku baax na nga def maa ngi fi yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm yaa fi indi kii waaw maa ko fi andi waaw jëxam kanam lu ngeen jote monsieur le président oui gis nga ñii. ñoom ay muskalaf yu ñàkk fayda lañ. dëggal lii amuñu fulla ci seen bopp amuñu fayda ci seen bopp. xanaa dañuy lëmbal. bu ñu lëmbaloon rek mu neex yam ca def. dañuy ñëw toog ci buntu jàkk ji. waaw sol seen i ñetti abdu. Mhm. ku leen romb yaakaar ni ñii dañoo am valeur. ndekete carte xaalis kese lañ nekkee ci buntu jàkka ji en tant que weeru koor. carte xaalis. carte xaalis lañ fa nekkee ci weeru koor gi. maa ngi toll nii. moom ak yeneen moromam yeneen paa yi toog ci buntu jàkk ji ñoom ñëpp dañuy carte xaalis. jërëjëf eh. Hmm? dégg nga li naa ko bu baax yow da ñàkk fayda. eh, eh wax ak kii waxal ak président kii daa ñàkk fayda. ñun liñ def dañuy dàq koor. ndax bu ñuy daayis di poker loolu yàqul koor buñ sa amee aslëf dem yóbbu ko si si suñu ñu defaral ñu ndogu loolu daa yàqu koor loolu tax ngay ngay koŋet koŋeteeg eh. sa face yu débordé yi eh. man bu doon lii la ba nin bu ba rëg naa la fee lu yàgg eh. d'accord nga ne da ngeen di carte xaalis si buntu du bunt ba sax si wetu jumaa ji la waaye jumaa ji la la kër ga la waaw kër ga dafa féex te bu julli jotee nga dugg ci biir jumaa ji nga julli non ak fi ñuy carte bokkut waaye ci jumaa ja la rek <laughs> si wet ga la daal si wet ga la même pas noppi sa gémmiñ gi na roog wet ga la wet ga jumaa ji du benn jumaa jàkk këri jumaa ju benn si bi bi dinaa la ñam yow bala ngay dem enquête mbéj yow ngay xiisan poqataan noonu xam naa sa karaw yi sax eh taxal ba mu dóor la dóor ko dóor ko moo koy dóor ñi mooy ñoo nga xam seen karaw waxtaan day nekk ay greffage ay eh, bi am na jom. dóor tax na waaw beneen lu ma dafay avancer li ci portable bi la ko def. Eh. ay këyit nii këyit boutique yëpp jënd nga seen i këyit vas hmm. maandu. ku nekk am nga sa méthode booy dàqee sa koor. eh koy laaj maandu man. dama ne ana maandu. ah daa sëy. ah kooku bu aussi nga yëgal ma ko. Ah, way woo la ma jox Maadou Sa xam <laughs> nga lan lay waawaay Maadou Sa dimbali ma fekk jam xew yi moo tax sa tuñ waa ngi mel ni betaraaf continue yow. ku nekk am nga sa méthode booy dàqee koor buy carte bàyyi bu ñuy carte seen carte moom lu ci yoonam. jumaa ji nga wax de. carte wuñ ci jumaa ja monsieur le président mbedd mbedd buur la jumaa ja fa mu ne ak ñoom fa ñuy carte bokk ku ne am nga droit di carte fa la neex. di liggéey fa la neex parce day dàq koor ndax loolu ci maandu la bokk ak ñàkk a jëw waaye yow li nga def ni bokk ci maandu te ci weeru koor lañ nekk weeru koor dañ ne ci maandul sa yoon newu ca la ñuy def di jël sa bopp merci monsieur le président à la parole <laughs> bourse day reekat <laughs> mel ni faaru oto yu beex yi ci weex tàll yi nga xamul la ko taal da nga def nii yow eh góor gi sa gémmiñ gi xam nga di ko tëj ci nii mbala ci nee. merci monsieur le président. na waxaat. maître Sarr comme d'habitude yow gàcce rek nga ñuy rek. mooy bàyyi maître nag indiwu wax dëgg yàlla. ah. maître nii nga nar a yaree say doom pour ñuy kat ah waaw mbooloo mi. koor nii ndax yéen di ngeen bàyyi seen ay doom ñuy kàtt. monsieur le président. faay ñàkk faay rëy. ñàkk jom ndegam dañuy dàq ko naka dem dàq ji wu ñuuf te jël ma kii. wala koy dàq ji moom jël jël jël ci moom. merci paa bu tol ni yow ngay kaat xaalis lii aw ma dara lu ma ci yow. bul waxee rek yàq vas-y yow. merci président góor gi am ngay doom. am na ay doom yu bari kay. ñaata hmm, doom ñaata doom. 36. nga ni ah ma ca Iblis. yow jabar yow moom jabar mosu ñu day nen. ñaata jabar nga ah! ñaara jabar boobu. am naa quatre. quatre jabar waaw. c'est logique ah quatre jabar laa ko. quatre logique naa ko di président. ah nga góor gi ak ku mel ne yow sëñ bi jàng. jàngoon naa kay. yàlla sax dèjà xaalis waxuma la ak ci weeru koor yéen ngeen di ay kilifa wala joxe bon exemple ci koñ bi tey eh, yow laay wax hmm. ko war a joxe le bon exemple am leen lu leen di def lu leen noo sa carte seen biir kër mais yëpp yàlla yëpp askan wi weesul nga ñëw ci jàkka ji naa ma ci këru jàkka ji dafa carte xaalis yéen respecté seen bopp respecté leen ñun waa koñ ba ñu yabaate ngeen te yow sëñ bi sa yooyu noonu amoo kese ñu la naan seen bàpp carte xaalis ko yóbbu ci kaso yow amoo liggéey wala nga xëy wuti loo def nga ne ci carte xaalis bi nga yaakaar loo dem loo dem jëndee ndogu loolu ci ndogu sax amul koor weeru koor lu toll la weeru koor nga war a jaamu yàlla yàlla jéggal la nga dem taxaw ci wetu jàkka kii dafa yabaate monsieur ci wetu jumaa mi doo julit monsieur le président appliquez ce que ah, ah, sama droit jërëjëf yow ku baax nga ndax l'islam boo ci nekkee da nga cay ne boo ca nekkul ne woo ca li nga def dagan na may ma demal toog merci waaye itam sa kanam gi froissé na de te te te te del jege fi ni passé ndax sa leeru passé bi topp sa kanam gi waaye mu tàlli xam nga yéen yéen ay seytaane iblis mooy yéen yéen yéen a ñëw wéeru ci yàlla ba pare di wata boor yàlla waaw wéeru ci yàlla ba pare di jëw yàlla ñëw ba ci jumaa yàlla ji ak ni mu màgge benn ngeen fay carte xaalis ñaareel ba ngay carte xaalis di ko yóbbul sa njaboot ñu koy lekk ak araam amu leen xëy amu leen gont doxaan carte ëmbal ngénte doxaan carte ëmbal ngénte mooy seen métier nga ne 36 doom nga am sa aawa sonn na ci su ma nekkee wax bu bëri sax. balaa non non monsieur le président monsieur le président. président Guèye s'il vous plaît. waaw yow monsieur le président. monsieur le président ki amul droit dóor ko de. solo nekk ci waay carte gi laa bëgg a laaj ndax di nga ko bàyyi solennellement wala doo ko bàyyi. dama ni ndax sa pap xaw ma lijjanti woo sa pap carte gi di ko bàyyi solennellement wala doo ko bàyyi laay ah? ñaata weer nga bëgg a tëdd taamul say weer zéro weer gisagoo dara sax hmm? dara sax yow amoo kàttan di mbëkke. Hmm? delluwaat na delluwaat na waaw. Hmm? léegi naa yees. danoo xëdd ba pare. yow amoo kattan mbëkke bàyyil mbëkke. président ah mooy yëg rek ngente bi. ngente ngente amul président. damay yëg président su fekkee ngente amul. Eh, yow laa eh, jàppal kii yow. amul de. procureur. Hmm. di procureur ci faat. da ngeen añ koor la ñu gi la benn tànk koor gi la. avocat Kelle Dor bokk ci ki tàgge. booy feebaree am président comme président mooy waaj a dégg ñu tànkee la benn yoon. Hmm? yaa ngi bi jeex na. ah période bi jeex na waaye fi mu toll dama lay tàgge ni nee hmm? na lay bëgg rek continuer damay séance bi wala. Hmm? séance lëwee. <laughs> séance kekk lëwee. yéen a ngi ci affaire suivant bi. waaw commencé ngeen moom laa ci nekk dinaa leen dab.